من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه mbokki ci yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi yëkkati nuyoo yu sell yu ànd ak ziyaar bu dëggu ak ndokkeel boo xam ne ñu leen koy ndokkeel ci weer wu tedd wii di weeru suñu sëriñ Mawlana Cheikh lislaam wa barakatil anam di tàmbali nag suñu nuyoo ci soppe suñu xarit suñu àndandoo ci yàlla Cerno Amaat Njaay taalallahu baqaahu sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay bégee maa ngi feddali sama kóllëre ak yow maa ngi nuyu itam sa gan yu tedd yi yëpp wuy si woote bu tedd bi nga xam ne woo nga leen ko ci bési Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu wuy si di ci jiital suñu yaay suñu sëriñ cheikh maam roqi bintu maulana cheikh islam sayida ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wàcce sa wàccuwaay di la ndokkeel ci sa guddik baay bu tedd gii di la ñaanal wér ak fan wu gudd ak fajuk aajo di ko ñaanal corna amaat ak mbooleem ñi wuy si wooteem bu tedd bii mbooleem njaboot gi mbooleem ànd ndoom yi ci yàlla corna maa ngi nuyu say muqaddam maa ngi nuyu say taalibe di nuyu say sopp xarit di nuyu say wóllëre yépp waaye maa ngi nuyu mbokk mu tedd mii di cheikh Mouhamed mu cheikh El Hadj Ousseynou Aboubacry ni mi Mawlana Cheikh Hadj Allah nii lañ fi dajee woon daaw ak daawu jéeg euh, loolu di wanes digganteem ak yow yàlla nañ ko fi yàgg dajee at yu bëree bëree bari ci kaw wér ci kaw jàmm ju dolleeku ak yokkute ci wàllu yàlla Cheikh Ahmed Tidiane mu suñu baay suñu nijaay bu ma ci neex alxaaj Abdullahi Hadi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu soxna yu tedd yi di di leen ziar waaye di nuyu marraines yi eh, parrains yi kon ak marin yi yépp di leen ndokkeel ci cëriñ leen jox te moom ko di nuyu ñu ñuy dégloo ko seetaan di ñu bàyyi xel ñépp di wax ne man su may ñëw ci jotaay Thierno Amath damay yëg ne sama kër laa génnee jëm sama kër damay yëg tamit ne maa nga jëm Boubacar te ku ne Boubacar la jëm ci baay Boubacar baay a fa nekk ci lu ndax Mawlana Cheikhul Xayri sama sëriñ bu baax boobu sama baay boobu yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér moo ma yar jàngal ma waaye moo ma nàmpal ci lu teel mbëggee li Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu may tuut tànk ne ci ronam mu may jàngaloo uritu bi xayril xalqi xayra mara eh, mara yi nefes chekka wala suwa wa kulla mira yi xasaayit yu bari moo ma ko moo ma ko moo tax ma mokkal ko ci ndaw booba sax xawma lim may ñaax lan la waaye bi ma demee ba xam li xew xam ne bàyyi rek kay waaja euh, bëgg ko rek am solo tey ak ëllëg dama koy ñaanal yàlla waxtu bu nekk di ko gërëm loolu moo indi cofe moom ak cër bi ma am ci moom moo ma boole ak coono amaat xale toog Cheikhul Xayri la tudd moo nga sama kër dakaar fii la nekkoon ak man damay dem Dakar ànd ak moom kon Cheikh mu ngi ànd ak man maa ngi ànd ak moom Thierno Amath nag boo gisee ma am euh, ma ñeme mbiram te am yaakaar ci mbiram mooy Thierno dafa dëggu ci cofeel gi mu am ci baay Thierno dafa nekk koo xam ne nii tamit dafa ñeme pays bi man muqaddam bu ma gis nga ñeme pays bi ñeme njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim ngi jaxasoog ñoom damay am xel mu dal ci sa mbir am na ci ñoo xam ne ñeme wuñ bi pays bi nag ku jubut wala ngay rax ci sa mbir lu ci mbir yi lu ci bokk doo ñeme pays bi doo ñeme jaxasoog njabooti baay gi moom loolu dalu ko loolu ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax maa ngi ànd ak euh, suñu mbokku góor gi caam muy sama wóllëre di sama xarit di sama àndandoo boo xam ne ku ma xam-xam maak moom sama jotaay yi may faral di waxtaan dina koy fuuglu yépp waaye nag seetlu naa ne jotaay bi muy gën a fuuglu mooy jotaayu Thierno bi waxtu bu ne dana ma laaj bu rajab teeroo kañ la bési Thierno bi loolu baax na ñu xamal ko xamal ko nit ñi at mu jot tamit da ngeen ko gis mu ànd ak man ñëw bokk ak ñun jotaay bi mu ngi ci jotaay bi maa ngi koy euh, maa ngi feeñal teewaayam ak cofeelam bu mu am ci sëriñ bi ak njabooti sëriñ bi ak it ittewoo gum ittewoo jotaayi sëriñ bi dañuy yemale foofu nuyoo yi ak présentation yi dugg ci li nga xam ne mooy liggéey bi muy thème bi suñu mbokk oustaz Pape Diouf di jàmbaar di koo xam ne nii dëgg-dëgg cornaamaat jeexital nga ci moom ndax ku ko xam rek xam ne ku am cofeel la ci bàyyi radiallahu anhu ba ku ràññee la pay bi ku rafet nu muy liggéeyalee pays bi la maa ngi koy sargal moom it di la ndokkeel ci moom di la wax ne la Hamzatu wasl la si diggante ak jamaa bi te mu ngi rafetal bu baax mission boobu moo ma wax ne thème bi mooy rôlu tasawuf ci tasaare jàmm ak suuxat ko ci société ci monde ci monde islamique ak ci àddina bi rawatina rôle bi nga xam ne madrasa Mawlana Cheikh Ibrahim muy faydu bi am na ko ci defe naa loolu nga wax ne mooy thème bi muy thème boo xam ne thème bu yitteel jamono la thème bu jamono laaj la ndax dañoo nekk ci jamono boo xam ne changement yi dafa gaaw lool ci niveau yëpp nag muy niveau gox réew mi ak gox goxaati réew mi frontière ak euh, sous-région bi ak àddina bi yëpp changement yu gaaw yoo xam ne kenn xamul fu mu jëmee nit ñi changement yooyu ànd ak ay catastrophe naturel ànd ak xëccoo yi ay politiciens ak seeni xuloo ak seen bëjoo ànd ak crise économique boo xam ne bu compliqué la bu jafee saafara la waaye ànd ak tamit li ñuy wax phénomène yi violence bu garaaw ak extrémisme ak teengal boo xam ne gis nañ ko ci ñi nga xam ne dañuy oote diine gis ko ci nit ñi ñëpp gis tamit càcc gi ni mu yombee léegi ba kenn mën a toñoŋal alalam kenn mën a tute yeewu aw béy sa xel dal ci wala nga gaaree oto sa xel dal ci mbaa nga dencab xaalis sa xel dal ci mbaa nga sa kër sa dal rayante bi tamit bakkan yi ñuy faat bëri lool bërki démb rek ci Sabodola ay defkati ñaawteef war ci seeni vélo dawal yàlla yuy liggéey ñu boom fa ñeenti nit armé wu ñu rey boom fa ñeenti nit jël alal ja war ci seeni moto di dem gis ngeen li xew maag sa góor giñ jam ba mu yàpp ñu rendi ko nim xar muy lu ñaaw loo xam ne nii mi kenn xamut ban Sénégal la nekk léegi gis ngeen la xew tamit seeraas ci diggante ñaar ñoo xam ne dañoo wax ne sax. woon benn bakkan ñu ne waxee xaw ma jigéen leen boole xaw ma xaalis a leen boole ñii ne alal la ñii ne jigéen la waa ji da koo nemmeeku soxlaam waaye lu mu mën a doon rek loola ëpp na ñaaw na mu dëbb ko mu rendi ko moom it kon ré kon loolu ak ñi xaru fii loolu tax na léegi kenn amatul xel mu dal léegi nag moo tax thème bu ni mel buñ ko indee di waxtaanee suñu école bii di tasawuf di école bu école boo xam bu mag bi mooy ci ci diine ji ak ci tariqa bi seen njàngale lan la mëna indi ci jàmm jooju nga xam ne yooyu moo ko fi saxaloon te tey ñu gën a soxla mu sax fii may wax ne xéewal gënta màgg jàmmu ndax jàmm ci la lépp xaj la olof di wax olof yi ñoo ko wax ñoo ne jàmmu ci la lépp xaj albatiku ne euh, olof yi dañuy wax ne bu ñuy jàmmalante sa ngay dégg ñu ne mbaa jàmm nga am mbaa jàmm ngeenam mbaa jàmm ngeen fanaanee ba jàmm ngeen yendoo kon loolu di wane euh, ne jàmm olof yi xam nañ ne mooy lépp suñ société société bu xam jàmm lañ bu ko bàyyi xel lañ xam nañ ne bu jàmm su amul dara du sotti loolu suñ société bi xam nañ ko suñu nuyoo sax ñu ngi tatagal suñu soppee Seyd Habib Sall suñu genn wàll la moom koo xam ne ñu ne maag moom benn lañ di tatagal Ismaïla ak mbokk yi tedd yi ñànd ak yëpp ma jàmm mooy loo xam ne dafa façonné suñu dund fii ci senegaal nuyoo sax jàmmalante la ñuy wax mbaa jàmbalante nga ak gan gi loolu nag dafa mel ni mu ngi jógee koo ci lislaam ndax lislaam baat bi sax ci jàmm la xaree waaye tamit nuyoob lislaam boo ko seetloo mooy salaamualeykum te fekk fi woon loolu ndax arab yi ala im sabaaxa nag yeneen lañ doon wax lislaam ñëw jëlee fi loolu na leen indi leen lu gën te mooy nuyoo bi nga xam ne dafa làmboo jàmm làmboo yërmande làmboo barke muy rahmatu salaam aleykum wa wa barakaatu nga xam ne koo ko wax rek mu xam ne yow mi xelam dal ci yow mu xam ne ëmbaloo ko safaan ndax ku ëmbal nit safaan doo ko ñaanal loolu olof tamit di wax jàmbalante ni olof arab di waxee salaam yàlla subhaanahu wa taala mi wàccee lislaam tudd salaam wallaahu alxaaliqu albaari musawwiru wallaahul xaaliq wal musawi euh, law lawul asmaul husna waaye sax bi ma bëgg a wax mooy asalaamul muminul muhaymin al azizul jabbaarul mutakabbir foofu nga gis ne yàlla tudde na fa moom salaam àddina bii ñu nekk dara gënu fi jàmm alaaxira gee ñu jëm dara gënu fa jàmm wallahu yad'u ila daari salaam aljanna kër ak jàmm ga la ko yàlla tuddee di wane ne dara gënu fa jàmm waaye tamit nuyoo ni ñuy nuyoo wante fii ci ci sela ci jàmm suñ nuyoo wante ni mu làmboo jàmm ñaanal nit ki jàmm buñ demee aljanna sax loolu du folleeku taxiyatuhum na yalqawnahu salaam taxiyatuhum fiha salaam kon jàmm mooy lépp fii mooy lépp fële moo tax nga gis yonent bi salaa sallam musaana sëlmal ci julli ne allahuma anta salaamu wa minka salaam wa ilayka yahudu salaam jàmm rek lay ñaan yow yàlla yi mi nga xam ne yaa tuddee sa bopp jàmm yaay boroom jàmm maa ngi lay ñaan te ci yow la jàmm di jógee ci yow la lépp bàyyeekoo maa ngi lay ñaan nga may ma jàmm te may ko mbokk yi moo tax nekk gum nekk moo tax nga gis yoone eh, alxuraan di ñaax Quraysh ci may gim leen may jàmm ci suuratu Qurayshin falyacbudu rabba hada albeyti alladi ataamahum min juuin wa aamanahum min xawfin gis na saar wi dafa lëkkale ñaar muy ñaari baat la jàkk la lëkkale albatiku lëkkale waat ñaari baat yoo xam ne seen safaan lañ ñaari baat yi nga xam ne nii ñooy safaan yi mooy juu juuxu wal xawfu muy tiitaange ak xiif yàlla lëkkale leen ne leen saar woowu waaye lëkkale tamit am nu muy kóolute ak jàmm mu lëkkale ko ak itaam mooy dund nga gis nekkoon sécurité ak kóolute ak jàmm mën bu amee fu mu am rek dundu am développement am waaye développement mu ñàkkee rek xiif am ndax yàlla moo lëkkale xawfu ak juuxu lëkkale am nu ji firi jàmm ak euh, dundu kon développement mënta am te jàmm amut développement nag dafa mel ni mënta am mbokk yi mukk ci ni ko ñu bari foogee surtout ñi nga xam ne ñooy ñi amul lislaam dunduñu ko mënuñoo xamuñu loolu xamuñu ne lekk ba regg rek naan ba mbàndi sañ sa sol yére yu rafet sañ sa bay nes nesi am dëkkuwaay bu rafet wara oto bu rafet technologie bi ñu ne léegi jàpp nañ ne mën nañee indil jàmm mën nañee noppal ak xam-xam bu développé bi waaye yooyu yëpp bu àndul ak tënku ci lislaam tënku ci ay njàngaleem njàngale ñi nga xam ne ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn jiitu ci borom guddi gii ndax mooy saaxibul xilaafatil mutlaqati anillaahi tabaraka wa taala mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon goo xam ne dara desu ca ci wet yëpp kooku ay njàngaleem àddina bi mënta leer mukk développement mënta am te delluwuñ ci jàngaleem jàngale école boobu nga xam ne mooy fayda bi di tariqa bi di lislaam benn américain dafa nekkoon fii Medina di waxtaan ak ñun benn bés mu ne moom daal dafay jaaxle ñu ne ko lu la jaaxal mu ne yéen dafa mel ni amuleen dara seen ta tabax yi dafa yemamaay amu leen ay yoon yu baax amu leen bëri amu leen xaalis waaye daal dangeen a ànd ak dal ànd ak seen sago am jàmm toog ci seen ram garab yi di xàqtaay mel ni dara méttiwu leen ma ne ko dara méttiwu di ndax ñun lu ñëw mën nañ koo dégg ki ñu yar moo ñu moo ñu préparé noonu naan suñu attaaya yi mu ne ma te lii ngeen nekkee ci ñàkk ak jafe-jafe bu doon ñun la dañuy xaru mu ne ma loolu lu ne ko may paix sociale bi nekk senegal lu ko mayoo Sénégalais yi surtout mbiri na bàyyi gii nii dal gi fi ne boo duggee ci dëkk bi rek yëg benn dal yëg jàmm joo am ci sa biir jàmmi biir ak jàmmi biti sëkkiinatu loolu lan moo ko mayee ma ne ko ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko mayee te ànd ak moom mooy ànd ak yonent bi salaa sallama mooy dundu lislaam nga gis ne mbokk yi kon dund bu doy rek ni ko faale ni foogee ceeb bu doy dewlin ju doy soble su doy ndawal lu doy dépense bu doy rek foog ne loolu doy na pour nit ki am jàmm déedéet demeewul noonu yooyu mën naa am ba noppi waaye bu nit ki fàttee yàlla jàmm du mën a am garab gu doy ak dund gu doy yooyu mën naa dundal jëmm ji rek waaye xol bi ak ruuxu gi dafa soxla moom it leneen lu ko dundal lu dul loolu xayaatu ruux mooy li nga xam ne mënoo koo amee lu may ci madrasatu tasawuf rawatina madrasa tijaniya al bii ñu nekk xayaat boobu nag mënta am lu may eh, ci tudd yàlla ak itteewoo yàlla waaye ceeb bu doy rek ni ko état état moom xam nga loolu lañuy ñuy itteewoo faale ni tamit loolu la ñuy itteewoo ak jaañeen yi léeg nga dégg bu ceeb manqué coow li bëri lool ceeb manqué na ceeb manqué na pénurie am na nga gis sax ñuy ñaxtu kenn du dégg coow li na kur bu soble manqué ñu ne soble manqué na soble manqué na coow li ne kur diwlin manqué na sàngu songu état bi état bi def pexe yu nekk pour indi loolu fàtte nañ ne am na leneen luy manqué loo xam ne moo ëpp importance loolu mooy valeur yi jikko yi ak lii dundal xol yi ak liy le liy setal ruux yi loolu mu ngi moo gën a manqué waaye kenn doo gis kenn ku ñaxtu ne loolu manqué ne war nañoo fexe ba mu doy doo dégg loolu moom doo dégg kenn wax kon euh, fokk ñu xam ne yiñ jàpp ne buñ ko amee mu doy moom kese bu àndul ak li mu war a ànd ak ci luy defar suñ xol yi jàmm du mën a am dal du mën a am li nga xam ne nag moo ñu mën a yóbbu ci société boo xam ne société bu dal la société bu euh, boo xam ne ay nitam dañoo ràbbaloo société boo xam ne ñi ko dëkkee dañoo am sécurité te mooy dal loolu mooy dellu ci lislaam dellu ci yàlla subhaanahu wa taala gëm yàlla gëm gu wér ragal ko ragal gu wér di tudd yàlla di jàng alquran di fàttaliku yàlla te bañ koo fàtte ndax yàlla moom am na fulla ak fayda gu day ni ku ko fàtte mu fàtte la te kum fàtte nga fàtte sa bopp nasullaha fa ansaahum anfusahum ak nasullaha fa nasiyahum xawma bu ci gën a métti nasullaha fa ansaahum ak fa anfusahum ak nasullaha fa nasiyahum xawma bu ci gën a métti waaye jàpp yaay benn baaxu ci yàlla boo ko fàttee sa bopp la lay fàtteloo sax yow dootoo talati sa bopp mën na laa booleeg jabar soxna rek su doy waar soo xam ne daf lay nekk sa nattu lool mu lay mbugal suba ak moom ngoon daf la euh, war fas rek war la di la di ali ali fas di la waaw lu diis mu yan la te doo sañ a bañ la nga bañaloon yàlla yëpp nga nangul ko gone gu jigéen gi wala mu xiir la ci sa bëgg-bëggi bakkan nga xëy di tuñ tuñi rek ci sa bëgg-bëggi bakkan yoo xam ne du sotti mukk te doo ne ci yàlla te boo ne woon ci yàlla am yàlla ba noppi sa bëggi-bëgg yooyu yàlla sottalal la ko kon ku yebu jox yàlla sa bopp loolu moo mooy li noppale moo tax alquran daraballaahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yaatiha risquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi anumillah fa azaaqaha allahu libaas aljuuci wal xawfi bima kaanu yasnaun yàlla nee na société dina naat fekk li ko naatal mooy ña ko dëkkee gëm yàlla waaye waxtu wu ñu wanee yàlla gannaaw weddi ay xéewalam yàlla nee na man ma soppi jamono mu jafe lool ci seen kaw métti lool te duñ xam fu ñuy jaar ba génn ci wax ci beneen aaya ne alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te boole wuñ ca bokkaale ko ndaw lu jafe mucc ci bokkaale lu jafe la Mawlana Cheikh Ibrahim nee na shirku dafa bëri da ñaari façon la mu ne am na shirkul jëliyun am shirkul xafiyun mu ne shirkul jëli mooy bokkaale gu fës di julli di ko wane di wane ne maa ngi julli maa ngi jaamu yàlla di ngistal dafay yàq jëf waaye shirkul xafi yi mooy gis leneen lu fi nekk lu dul yàlla moo gën a garaaw ndax moom bu boobaa day tax yow doo àgg ci yàlla doo àgg mukk ci yàlla diggante ak yàlla bee digganteeg ñu nangu sa jaamu yàlla waaye bii moom day dox sa digganteeg yàlla kon mucc ci jafe na te ku ko te ku ci mucc doo am jàmm doo am xel mu dal doo am xol bu euh, xel mu teey euh, mu euh, xol bu xol bu xol bu sedd xol bu sedd doo ko am mu mel ni ànd ak Mawlana Cheikh radiallahu anhu ci faydaam bi mooy maye mucc ci shirk ni ko Baay waxee woon wa ahmadu rabbi laysa sirriya aaqiran fa asgaru atbaa'i bari'un min ashirki mu ne moom Baay radiallahu anhu mu ngi sant yàlla mbootam jërmeelut ndax ki gën a néew ci ay toppam ay toppam la wax ñi koy topp di ko roy nee na mucc nañ ci li nga xam ne mooy bokkaale yàlla muy loo xam ne lu jafe la ku àndul ak baay da xam ne lu jafe la te ku ko amut mucc ci bokkaale yow amagoo jàmm boo jàppee na am nga jàmm it ndax yaa ngi ci kër gu rafet yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi faj say soxlaay àddina fekk na loolu sore na ak jàmm dëgg-dëgg ndax fàtte yàlla mënta ànd ak jàmm ak ñàkk tudd yàlla tudd yàlla mooy maye jàmm alladina amanu wa tatmainu qulubum bi dikrillah ala bi dikrillahi tatmainul qulub xanaa tariqa bi dugg na nga xam ne mooy tariqatu zikri wal muzakarati kon fokk ñu delluwaat ci tasawuf moo nga xam ne mooy maqaamul ihsaan waaye fokk ñu dellu ci ngëru cheikh na yooni méthode cheikh na tijaani radiallahu anhu ndax tasawuf mooy lubbu lislaam maanaam lislaam bu fekkee ne euh, kii la ni ñu koy waxatee euh, ndaamaraas doom ji nu tudd euh, garab gi ndar do kii ba ca biir mooy saal saal bi loolu mooy bu doon lislaam ndar kaso la da ngay wax ne saal bi mooy tasawuf mooy tariqa tijaan ndax tariqa mooy xaqiqatu tasawuf mooy tasawuf dëgg-dëgg waaye fayda bi nag moom dafa ñëw nekk lubbu lubbi ni ko boroom waxee wala yeku xishru diini xadda muhibbinaa bali lubbu lubbu lubbi maxda maxdu ataay bàyyi nee na ñi ànd ak man ñoom xottu rek ñeelut leen danañuy romb xott bi dem ba ci saal bi ak saalu saal bi xam nga boobu terme kenn mësu ko wax njëkk Mawlana Cheikh Ibrahim lubu lubi doo ko dégg ci kenn demal ci téere tasawuf yëral ba sonn mustalax boobu fayda bi rek ci nga koy gis bale lubu lubu lubi xam nga bàyyi moom ay mustalaxaatam sax doo ko fekk feneen loolu mooy euh, li nga xam ne mooy faydu faydu boobu nga xam ne moo ñu mën a yóbbu ci dëgg-dëgg itminaan mooy dal moo ñu mën a yóbbu ci te itminaan mënta am dëgg-dëgg lu may ci mushahada muraqaba ak mushahada muy lu jafe ku àndul ak bàyyi xaw ma foo ko jëlee ndax nit ñi ay xaaj lañ am na ñoo xam ne ñoom dépense bi doy na yére yi rafet na oto bi rafet na kër gi rafet na soxna si rafet na maa ngi faj samay soxla ñoom loolu moo leen di may dal fekk na loolu du dal euh, radu bil xayaati ma watma annu biha watma annu biha ñoom àddina doy na leen loolu nag du itminaan am ñu topp ci ñoom ñoo leen kawe daraja fuuf mooy ñi nga xam ne tatma innu qulubuhum bi dikrillah ñoom tudd yàlla ci la amee xel mu dal ak xol bu sedd waaye am na ñu gën a kawe ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ci mushahadatu te mooy janook jëmmi yàlla ji rek moo leen i mën a may seen xol sedd ca la yonentu yàlla ibrahima àggoon ba muy wax ne rabbi arinii kayfa tuxiil mawte qaala awalam tuumin qaala bale walakin li ma inna qalbi itminaan boobu itminaan bu bàyyeekoo ci mushahadatu la loolu nag mënuñ koo am lu may ci madrasatul faydati xaqiqatan kon jàmm ju mat sëkk ku ko bëgg da ànd ak bàyyi lu ko may jàmm ju ko xàppatiku ngay am Pape Diouf jàmm ju xàppatiku xam nga ko Pape mooy jàmm ku fàtte yàlla àndoog bàyyi ba xàmmee yàlla bay dund yàlla boo jàppee na am nga jàmm jàmm ju xàppatiku nga am de jàmm ju manqué manqué lool sax moo tax euh, nga gis ne am na loo xam ne julli yu bëri mayewut ko jàng mu rëy mayewut ko buñ noddee nga daw utali jumaa ja yaa ngay julli mayewut ko bu doon loolu la naafeq yi ña nga woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy jiitu ci jumaa ji di julli comme jullit yépp di jàng alxuraan te seen xol yi defaruwut lu ko waral di jëriñoowut tarbiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy tey rek ñi nga xam ne ñu ngi ci biir daayiratul islaam ay jullit lañ ñi ñun euh, ay julli lañ daal waaye di weddi tasawuf di weddi tariqa bi dal ci kawam dal ci kaw fayda bi ñooñu tey boo leen fekkee ña ngay julli ña ngay or waaye boo waxtaaneek ak ñoom wala nga déglu leen wala nga xool seen mbir da nga xam ne amuñu yaqiin amuñu tamaniina amuñu xàmmee xam ne danga xam ne dëgg-dëgg weddi gi ñu tariqa bi xañ na leen lépp ba mënuñoo gis leer yi mënuñoo dégg nga ko àgg ci yàlla subhaanahu wa taala defaru du rekk ci jàng defaru du rek ci ak defaree du rekk am xam-xam maîtriser wax éloquent dégg nga ko bëriloo mokkal sa làmmiñ fecceeku ngay waare subaa ngoon di tare ay xadis te amoo ndigal sa xol leerut defar woo xamoo yàlla doo mën a defar kenn ndax defar woo bay defare nañ xam ne ñoom ñoo ñu ñooñu di weddi tariqa yi seen waaraate yi defar mënul ñoom mënut a defar kenn tarbiyatu bil himmati wal xaal moo mën a defare tarbiya bil himma xaal mooy man ittasaba bi xaalatin lam yuxli xaadirahu minha ku fexe ba am xaal bu wér sa diggante sa borom ku jege ku la jege nga wàllu kooku waaw moo tax genn waay benn waay bu mel ni corna amaat bu am xaal yu wér yàlla teewaayam ci biir mbooloo moo gën junney waarekat yu mel ni Ahmed Boucar yu ne ci biir mbooloo di wax suba ak ngoon te seen wax du jeexital boroom xaal bu wér boobu xaalam ci biir mbooloo noppeem moo gën wax waxi sama classe bi nga xam ne mën nañoo nekk fii di wax suba ba ngoon te seen wax yi du jeexital kon yëf yi dafa laaj ñu dégg ko ñoom nag dégguñ ba pare ñeme ñeme ñeme ñeme ñeme bay weddi mayu yàlla yi di dal ci kaw waliw yi di dal ci kaw tariqa bi di weddi cheikh na tijaani radiallahu anhu di weddi mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu ka ñoo dëgër fit te ñoo texeye di ndax bu ñu xamoon dinañ xam ne weddi wali yu óorut waxuma di ko xas man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi yàlla nee na képp koo xam ne danga ma da ngaa noonoo suma waliyu takkal naa la xare ku yàlla takkal xare da nga mucc te kat gisuñ fenn Mawlana Cheikh Ibrahima ay wax fu yàlla takkalee nit xare lu may ci ñaari barab benn barab bi mooy boo ki ñi ñe ku ñu njëkk ñi mooy ñi noonoo waliyu bi ci topp mooy ñiy lekk riba moo tax riba lu jara moytu la moom it fa in lam tafaalu fa adanu bi xarbi min allahi wa rasuli ci rib ci lekk riba man nag dama ci am dégg-dégg xaatir la rek lu may ñëwal li tax yàlla takkalul xare lu may ñaar ñooñu kii lekk riba ak kii weddi yu yàlla yi di leen di leen di nga di dal seen kaw ma gis ne tax mu boole leen takkal leen xare mooy kii di aakilu riba dafay dagg wërsëgi nit ñi al arzaq al xisiya seen wërsëgi yi jëm ci seen dundi àddina bi lay dagg di ko yàq économie bi lay yàq kee arzaqul maanawiya lay dagg ndax moom dafa bëgg a dox diggante nit ñi ak ñu dem ci wali yu ba am ci arzaqul maanawiya yi kon ñoom dañoo am lu leen boole ku ci ne da ngay dog wërsëg waaye nag jàpp naa ne kii dox diggante waliyu bi jéem a dox diggante wali nit ñi ak waliyu yàlla bi kooku moo gën a bon delekale bon na benn baaxu ci ndax alxuraan yàlla bu demee bay takkal ñaar ñëpp xare mooy ne ñoom ñaar kenn baaxu ci kon ñoom duñoo waroon a xam ne waliyu yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax na ne mu ne man saxara amaamata aalimin fa qaala uwaymatan kafara boroom xam-xam yi nee nañ bàyyee nettali radiyallahu anhu mu ne boroom xam-xam yi nee nañ ku tuu ku borom xam-xam rek bu jàng diine boo tuutilee kaalaam gi ba naan as kaala la yor kaala si mu ne rek weddi nga génn nga ci diine dere sax boroom xam-xam ba duur waliyu kon nag waliyu yàlla boo ko xasee yow yow yow yow ci loo nekkati dara nekkatoo ci dara te nit ñi man dañ ma dama leen a comprendre ndax bu fekkee ne kaaba gee beytullaahi askan gi mu ko askanal yàlla moo ko may xorma ba ñépp xormaal ko yow nga nangu loolu nangu ne ab tabax doj buñ ko askanalee yàlla dafay am xorma dañ ko war a wekk nangu loolu ci doj yi naaqatallaahi wa suqiyaaha gëlëm la comme gëlëm yi gëlëm la ci gëlëm yi rek waaye bañ ko askanalee yàlla rek mu am xorma ba bañu bañu ba ñu ko lojee jaamarlee moom naq bi te yàlla na leen bu leen jege nàq gi ndax kat nàq gi nag gëlëm gi dañ koo askanal yàlla bañ ko laalee rek fa dem dama ale yi moo ci topp fa dem dama ale waliyu bi tamit waliyullaahi dañ koo ah, dañ koo laafal yàlla nga ne nag kii nga ne da nga ko nangu ci doj bi nangu ko ci gëléem gi waaye doo ko nangu ci nit ki nit ki moom ñu ne waliyullaahi du tax yow nga xormaal ko te doj bu ñu ne kaabatallaahi baytullaahi baytullaahi nga xormaal ko loolu boo ko seetloo ñàkk dégg la moo tax gaa yi seen xol yi dafa lëndëm ak seen gis-gis yi te li ko waral mooy weddi nit yàlla yi duñ mën a am mukk jàmm nag ci jàmmu rek laay waxtaan ba léegi dafa am kenn ci ñoom weddikat yi kuy waxtaan ak man ne ma yéen sama xarit la woon nag ñu bokkoon di jàng waaye yàlla dafa def moom gëmu tasawu gëmu tariqa jàng na ba am doctorat léeg-léeg mu seet si ma ñuy waxtaan mu ne ma yéen da ngeen di def shirku ndax da ngeen di def tawassul da ngeen di da ngeen gëm daal seen gaa yi trop ma àggale leen foo xam ne daanaka bëgg leen a doxale seen digganteeg yàlla te yàlla dañuy dem ci moom direct shirk baaxut wax a wax a wax ma koy déglu rek muy muy wax rek dimbale la li rek ba mu paree ma ne ko dama laa bëgg laaj-laaj bu gàtt mu ne ma laajal ma ne ko ban bés moo gën a eyoo ci bés yépp ñu ñàkk cee def shirku ban bés lañu war a euh, dawale bokkaale mu ne ma yowmal xiyaamati bés penc ma ne ko nangu loolu mu ne waaw ma ne ko bés penc li tax xadis bu wér ñëw ne nit ñi buñ tiitee dañuy daw utali yonent yàlla aadam ne ko wàllu ñi aadam ne leen taluma leen wàllu ñi ndax ñu dugg aljanna eh, mu ne leen ràmm ñu ñu dugg aljanna mu ne leen nu ma leen walloo man bu ma bàkkaaru toon du ngeen dugg du ngeen génn aljanna kon naka laa leen dimbalee ngeen ba ngeen dugg aljanna dem leen ci man taluma leen kat dem leen ci keneen taluma leen kat loolu la Adama wax ñu daw dem ca nuux dama ne ko Cerno Amaat mu ne ñu del siwaat ci dama ne ko ban bés moom la ñu war a dawale shirku mu ne ma yowmal qiyaam ma ne ko nag ma ne bés boobu moom shirku war amu ci ci war ci am cër bu fekkee am na bés boo xam ne mooy yeyoo shirku bañ ci am moo yowmal qiyaam mu ne ma nangu naa ko ma ne ko yowmal qiyaama xadis yu wér ñëw na yonent bi salaa salaam mooy wax sadiqul masduq du wax ci bànneexu bakkanam du wax lu wérul mukk danga loolu mu ne waaw ma ko moo ñu wax ne bu yowmal qiyaamee nit ñi buñ tiitee dañuy daw ci maam aadama ne ko dikkal wàllu ñu ndax ñu dugg aljanna ñu ngi bëgg a eh, joote yëpp yaa ngi bëgg a ngi bëgg a xam ni gars yi wax mu ne leen taluma leen moom aadama taluma leen ndax man maa tax ngeen génn aljanna su ma bàkkaaru toon yéen a nga aljanna ba léegi kon man naka laa leen walloo ba ngeen dugg aljanna talu ma leen kat dem leen seeti keneen sama bopp laa tal nafsi ñu daw ci noox mu wax lu ni mel ñu dem ci yonent yàlla ibrahima mu ne leen sama ñàkk wax dëgg ya sama bopp laa tal daw leen ñu ñëw ci isaa isa bàyyam koy nettali ci sifaar yi ilaa na aqarru bayna nuuxin wa aadamin wa muusa wa ibrahima wal kullu walxaqu awdaxu bàyyi ni mu wax ne waa saxu benn euh, nu mu ko waxee cheikh yow ñu tatagal cheikh bara cheikh lislaam suñu rak ci jotaay bi mu wax ba ne euh, bi ann xabiballahi taaha muhammadan shafii al waral maqbula yuuti wa yamnahu yonentu yépp joxoñ yonentu yàlla muhammad salaa sallam dem ci moom mu rammu sujjoot yàlla na ko tey du bés sujjoot laajal loo laaj ma jox la loo wax mu am mu nit ñi ma ne ko bés boobu sax nit ñi dañuy daw dem ci nit yàlla yi bés boobu nga xam ne li man mulkul yawma lillaahi waaxidul xaar nga ne àddina bii ni nag duñ fi duñ duñ dem ci ñoom mu ne pat ma ne pat waxtaan woo fa la yem xam nga ñoom dañoo yàlla daf leen a nattu ndeysaan dañoo soxla bàyyi daal te xamuñu ko nag te nag ne dañuy jéem a jël nit ñi jëlee leen fi ñu nekk yóbbu leen ñoom fi ñu ne ma ne du yomb ndax nit ki bu fekkee ne yow da nga koo yërëm yaa ngi ko yërëm mu bëgg laa indi fi mu ne da nga ko nangu moom xamul na yow danga nga ko yërëm mu bëgg laa jëlee fi nga nekk indi la fi nga fi mu ne te kat nit ñi liñ xamul mooy weddi tariqa tariqa la weddi tariqa tariqa la liñ xamul mooy weddi sëriñ amut xam nga lu am weddi sëriñi jàmbur ndax képp ku lay bëgg a bàyyiloo na Amaat mii moom ma nga am kum muy sëriñam gaa yi di weddi Cheikh na Tidiane ak Mawlana Cheikh Ibrahim ku ci nekk am nga sëriñam naar kii ibnu Taymiya la gëm kii ibnu Muhammadin Abdul Wahab la gëm kii ibnu Baaz lay déglu ah kii keneen kii keneen ku ci ne am nga koo xam ne moom ngay déglu moom ngay dundee liñ bëgg mooy yow nga bàyyi li nga jàpp fekki leen loolu ko am fula dana ko nangu ku am Mawlana Cheikh Ibrahim mii da ko wéccoo ab naar ah loolu naar boo xam ne dafa lu ñu dara xamuñu ko guddi xamuñu ko bëccëg nga ñëw di ñu wax ay waxam bàyyi waxi mag ñii gis nga ñii euh, seen mbir dafa yërëmtalu sax moo tax duñ ci guddal ci tontu ñooñu ndax amuñu seen jot waaye dañuy wax daal ne tariqa bi muy tariqa Cheikh na Tijaani bii nga xam ne mooy dëgg-dëggi tasawuf tariqa la buy oote jëm ci jàmm ki nga xam ne moo ko mooy fondateur bi muy Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ootekati jàmm la woon ku daan benn la julli di la woon di dawloo nit ñi fitna leetaram yi mu bind ci loolu buñ ko toppoon tey ci jàmm dafay gudd lool bokk na ci lettre boo xam ne mu ngi ciy wax ne jaam bu nekk alal abdi an salallah al afiyata min tahriki shari nnaasi wa fitanihim fa inna ta tahrika taxarruka uh, fa in taxaraka alayhi min gayri sababin fa in tuxarrika alayhi min gayri sababin minhu a falwajhu laala alladi taqtadihi rusumul ulumi muqaabalatuhum bil ixsaani mu ne nit dafa war a daw fitnaay nit ñi ak ayu nit ñi moom Cheikh na Tidiane loolu la dénkaane buñ demee sax ba nit ñi ñoom comme nit ñi léegi ku bëree ñu daanu sa kaw ku bëreewul ñu daanu sa kaw ñu daanu ci sa kaw it nee na mu ngi lay wax ne la nga yow nga fayee leen mbaax ak njekk te bañ leen a fekk ci bon googu ñu lay oo suñu sëriñ Cheikh na Tidiane li la wax kii ku ko gën a bëgg jàmm lettre bi dafa gudd ndax waxtaan yi bëgguma mu gudd ba ëpp waaye lettre bii rek nga xam ne boo demee ci rasaayili Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu da nga fekk wax na ci wax joo xam ne digal sa njaboot jàmm ak yar leen ci jàmm ak bëgg jàmm mënta weesu loolu dañ koy tënk ngir temps bi nga ñëw ci wadifa bi awraadi tijaani yee mu ñu indi muy wadifa bi ak xadratul juma lu gën a mën a boole xol yi ci yàlla amut lu gën a mën a boole nit ñi ñu juboo ci yàlla dootuñ tàqali kooti mukk seeni xol sell ba kenn du ëmbal nit safaan waxuma jullit waxuma tijaan waaye doo ëmbal nit safaan tariqa bi loolu amu ci moroom malaani tariqa bi rek ngay ñëw fekk mu dajale ay xeet yu fasantikoo yu bokkul sant bokkuñu gox yuñ jógee bokkuñu couleur ñu wër malaan mi ñoom ñëpp du sedd jàkkaarloo seen xar-xaram di xoolante loolu bu suuxatul mbëggeel ak cofeel ak bennoo ak jàmm lan moo koy suuxat ni nga xamee ne lislaam dafa am julli juróom julli juróom di dajale nit ñi di leen bennale eh, am tamit salaatul jumaati muy dajale dajale nit ñi ci beneen façon bu gën a kawe gën a yaatu noonu la tariqa bi amee wadifa mu tax mu jàkkaarloo ak alfaraid salawaatul xams mu am salaatul mu am xadratul eh, jumaati mu jàkkaarloo ak salaatul eh, jumaati gis nga tariqa bi léppam lislaam la mooy xaqiqatul islaam tariqa tijaan mooy xaqiqatul islaam tariqa boobu boo demee ci seeni ñaan bu ñu wasifa pare ñu ngi ñaanal jullit yépp bu set musabaatul asri boo ko jàngee ñaanal nga jullit yépp muslimina muslimaat laxyaay minum walamwaat loolu boobu tariqa tariqa bu ko gën a mën a tasaare jàmm amul mooy tariqa tijaan cheikh na tijaani radiallahu nga gis ne kon tariqaam bi tariqatu zikri la te zikru wax naa la ne la mooy li mën a may dal nit ki leneen mënu ko koo may te dal jàmm ju àndul ak dal mënta mat nekk mat jàmm kon jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci tariqa bi la nekk waaye jàmm dëgg dëgg dëgg ci fayda bi la nekk nga xam ne mooy lubbu lubbi ni ma ko waxee sànq Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom ku mel ni moom ci tasaare jàmm ak jàmmale nit ñi ak bokkale leen ci yàlla ak fóot seen xol yi bam set wécc ñeel yàlla amut taarix musu ko gis xaqiqatan ndax balaa maa ñëw sax ci faydu bi loolu laa bëgg a mujjee te lii may wax ci fayda bi la bokk muy taxawaay yim amoon ngir suuxat jàmm ak tasaare jàmm ci biir réew mi nga xam ne senegal gi la ko tàmbalee yi diine yépp mu tàllal leen loxo di demalanteeg ñoom bennoo ak ñoom lim liggéey ci bennoo di dox ak daraja ji ko yàlla jox ëpp ñëpp daraja di fekk ñëpp ngir bëgg jàmm ak bëgg jëriñ xeet wi loolu lim ci def kenn mënu ko wax ci benn jotaay ba mu jeex majlisu l'islaami al ala biñ créé woon ci senegal pour takkee sëriñ si yëpp ngir diine ji yëpp gën a nekk benn mën a jàkkaarloo ak lépp loo xam ne dafa bëgg a dal ci kaw diine moom moo nekkoon aminal am ba di bind li ñuy wax wër na senegal yëpp def taqrir boo xam ne bu ngeen demee ci téere Mouhamed bun Cheikh Abdoulaye bi da ngeen ko fekk wax sëriñ bu ci nekk biñ ñëwee li nga wax ne ànd naa ci seen mbootaay gi te li ko taxoon a jóg mooy boole nit ñi ak saytu réew mi ba nga xam ne li fi nekk dal gi fi nekk jàmm ji ak diine ju leer ji leneen du ko fekk si loo xam ne dafay ñëw di ko yàq loolu buñ ci duggoon nga xam ne liggéey bu rëy la ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu def amoon jàmm ak ñépp jullit yi ak ñu du jullit président yi yépp mu jege leen moom du buur sëriñ boo xam ne dafa seexlu nit yi àddina yi ndax moom da doon wax ne lii nazratun ila ibni aadam yastaxilu maaha al buxdu wal kurhu mu ne bët bi may xool doomu aadama mënta ànd ak bañ ko kooku bët bi may xool doomu aadama moom yàlla rek ko xam kenn xamul loolu lan la dox ci benn la julli di ci biir réew mi moom nañ cee wax lu bari def ko ci biti réew mi ma nga ca monde arabe mbooleem seen hayati instance yi nga xam ne institution yi nga xam ne taxawal nañ ko yépp mu nekk ci membre fondateur di teew ci réunion yi di teew ci congrès yi te duut koo xam ne dafay teew rek noppi di dégloo waaye dafa joxe xalaatam dafay wax lii d'accorduma ci lii laa d'accord lii mooy sama xalaat doy na ci misaal sabiru salaam fi ibqaayil maqaam xoola rek turi téere bi oote jàmm mën naa weesu loolu sabiru salaam yooni jàmm daal mu ngi ci bàyyi fi maqaama ibrahima bi fii palaasam te booba xaraar malaki la buur bi moo décidé ne nañ jëlee maqaama ibrahima bi ci wati kaaba gi bàyyi na déedéet ma radiallahu xam na li li muy wax moom moo rek moo ko xam parce que boobu bu ñu fa jëlee makaama bi àddina tukki konoon fitna ba léegi nii konoon ad ni euh, ñaa ngi ci musiba yoo xam ne dina ëpp gis konoon yoo xam ne li ñuy gis ni yëpp dara ci ay fitna bàyyi kon sauvé na ba tàyyi jàmme àddina bi mu ne nañ bàyyi maqaam bi gis naa sama bàyyi Cheikh Ahmed Dame Niang bind ko benn leetar di ko wax ne ko maa ngi lay bégal ne rabita bi def nañ daje yi mujj a def te kat li yéeme mooy dat yi mu wax ne ci la rabita bi def daje yi quinze rajab la ba vingt six rajab quinze rajab ci de majmua euh, alxutab al daaxiliya ak xaarijiya demal nga liir da nga fekk lettre sëñ daam ñang bi mu bind bàyyi di ko wax ne ko rabita bi quinze rajab lañ dajee loolu kenn xamul lan la nga gis ne bàyyi radiallahu anhu mbiri maqaam bi ah euh, lépp sax kenn mënu ko wax yéen a gën a xam mbiri maqaam mbiram la maqaama ibrahim bu ca ibrahima di wax ca mbiram lay wax moo tax ba ñuy d'accord ne dañ koy fekk si ci lim wax quinze rajab lañ daje ba vingt six rajab weeru wii di anniversaire yi baay ba si gane àddinaam ci la rabita bi daje loolu loolu gëm naa ne du hasard mukk demal ci lettre yi sëñ daam ñang bi mu wax bàyyi bàyyi ne ko bind naa sabilu salaam sëñ daam ne ko yàkkamti naa nga yónnee ma ci ay nu sax ndax waa Rabita baa ngi koy laajte parce que pare nañ pour décider fekk si la ci sa xalaat bi loolu ndam la lu rëy loo xam ne ni monde islamique yëpp daje Baye di sénégalais yëkkati kàddu monde islamique yëpp ak boroom xam-xam yi ci monde islamique yëpp ju fekk si ko ci kàddoom googu sëñ daama ngi cay wax wax ju daw ju am xorom joo xam ne nii ju xóot juy wane ne kii bàyyee ko nàmpal mu ne bàyyi gaa yi daal duñoo gëlëm rek ndax ñu ngi bëgg a tàqale maqaam al xalil wa xaliluhu maanaam ibrahima mooy xalilullaahi kaaba gi mooy baytullaahi ñu bëgg a tàggale xalil ak xalilam mu ne ko ñuy dégguñ xoolal kooku rek yarab baay la xoolal jooju wax loolu la wax maanaam Cheikh Ibrahima yuriduna an na bayna alxalili wa xalilihi <laughs> loolu kenn kenn xamul lan la xam nga loolu mooy wane ne madrasa baay bi ñun madrasa bi ñu am war nañ koo gën a war nañ cee gën a mooy bu baax a baax a baax loolu mooy lu jëm ci liggéeyam ci wàllu maqaam Ibrahim ci wàllu congrès yi liggéey na ci liggéey yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatu léegi nag li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy liñ bëgg a indi ci loolu mooy liggéey bi dëgg dëgg dëgg dëgg naam mu ngi ci congrès yi naam mu ngi tàllal loxo président yi ndax moom dafa gisoon ne président yi ñooy fasaka fecci te bu leen jegewut orienté leen mën nañoo jël ay dés mën nañoo décider ci mbir yoo xam ne nii dafay mujj jaar ci suñ kaw bopp yi ñun ñëpp ku ne dana la fekk sa kër te du baax mu jege leen ngir orienté leen da koy gis muy toog ak Jamal Abdou Nasser di toog ak ko amee Nkrumah di toog ak euh, dégg nga ko euh, Abdou Karim Qasim kenn mënu leen lim maréchal Tito Choenlai ci Chine yëpp fu ne mu dem di toog ak ñoom mu ngi ci congrès yi. te nekk kaa inan baa inan nekk ak ñoom ci jëmmam waaye xolam mu ci yàlla mu ngi ànd ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak keneen ku dul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko araani la daa aswaana adkuru ma eh, eh, eh, ara tara nu ko waxee araani de mooy fi mu waxee ne xaadiran zalla gaaiba bi aswaana jismi laa bëgg a wax xaadiran zalla gaaiba maa ngi nii Ousmane ak sama jëmm waaye maa ngi fàddu mooy la mu waxoon ci Taïba Niassène rek moom waxam bi mu bejjaawagut ak waxam bi mu bejjaawee yëpp benn la waxi bejjaawam yi yi mu wax ci bi mu bejjaawee firiwut wax yam waxoon ba kawaram ñuulee ndax ba mu nekkee Taïba Niassène dafa waxoon ne dafa wax ne min taybatin usdi ila zawahiri wa anta tadri batini wa zahiri Taïba yaa ngi ma fa gis maa ngi ci tool yi maa ngi ci marché bi di jaay dudu eh, gerte maag taalibe yi waaye fekk na sama yàlla rek a xam sama baatin na mu mel ñu ngi tatagal Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Alhaaj Mouhamad Zeynab euh, di koo xam ne boroom xam-xam bu mag ci xadra bi di làmmiñ woo xam ne nii mu ngi jottali message Mawlana Cheikh Ibrahim te mooy message yonent bi mooy message ul islam muy jëm ci nit ñi waxtu bu nekk ñëpp di jëlee ci moom xam-xam di jumu ci xam di jumu ci ay orientation am bi ñu ngi lay tatagal ci sa jotaay di tatagal cheikh Mamal Haaj ibnu cheikh Mouhamadul Muntaqa marhaban saydi bi antum sharaftum cheikh Bachir teew na nii la ni mu ko te teewe woon daaw ñu ànd koog moom fii daaw ñoo ko fi àndoon fii daaw àndaat ko ren yàlla nañ ko yàgg ànd ci kaw wér sëriñ bi ñuy yokk ñëw nga yokk jotaay bi taar ak yiw ak barke yàlla na yàlla saxal loolu ma ne Mawlana Cheikh lim liggéey ci jàmm kenn mënu koo wax ci benn jotaay diggante Mauritanie yi ak Maroc booba wul dadaa moo fi nekk ak Hassan Thani muy bind leetar wul dadaa di wax ak moom di bind mu euh, leetar Xasan Saani di wax ak moom ngir jubale leen wax di bind Kwame Nkrumah wax na moom Wulda daane ko moom baay boo gisee boo xamoon li may daj pour Mauritanie ak Maroc nekk benn ànd danga xam ne yow boo tëddee da ngaa war a nelaw ne ko laajal Nkrumah noonu la liggéeyee ci diggante Yémen ak Arabie Saoudite noonu la liggéeyee ci xar bu Biafra bii ci Nigeria nga xam ne bàyyi liggéey na ci liggéey bu rëy wax naa la ne la moom dafa jege woon autorité yi tàllal leen loxo bankut loxoom ci seen kanam ndax dafa xam ne ñoom ñoo ilif nit ñi ci wàllu àddina moom mu yilif leen ci wàllu baatin ak wàllu ruux ñii ñooy kilifa yi ci biti moom muy kilifa kilifteefu biir gi mu yore ko ñu seq nit ñi ñoom ñaar kon duñoo war di waxtaan cadre boobu rek ci la doon jëflante ak buur yi. waaye soxlaalu leen dara moom yàlla rek la soxlaal wéeruwul ci kenn ku yàlla te xam nga tey Nigéria problème yi fa amoon noonu bu fekkoon bàyyi uutee ak nguur ga taalibe yi moom la ñuy déglu moom la ñuy roy moom lañuy xool dañuy daal di ñoom it jàkkaarloo ak nguur gi te konoon catastrophe rek lay jur nga gis moom xikmaam ci oote sagesse bi mu ànd ak ci woote bi mu doon wooteel yàlla ak ndigal gi mu am ba loolu moo ko niital ba nga xam ne lépp lu muy def leere alxuraan moo koy niital ak leer yonent bi sallallahu nga xam ne du tàqalikoog moom mukk loolu buñ ko toppee liggéeyam ci àddina bi dafay gudd lool waaye fi may tëjee rek mooy faydu bi nga xam ne lu ko gën a mën a tasaare jàmm suñ koo xam ci àddina lu gën a mën a fóot xol yi ba kenn du amal sa morom benn ëmbal sa morom benn safaan ah mosuñ koo gis ci àddina taalibe yim jël fóot seen xol yi jam daje takkee leen ci yàlla ba duñ tàqalikoo yoro baabeeg bi nga xam ne daawuñ jaaroo taal nekk benn loolu ñuy gorowante mauritanien beeg sénégalais beeg awsa beeg ñëpp léegi nekk ay bokk foo dem ci àddina bi fekk fa say bokk yoo xam ne da jaxasook ñoom ci deret jaxasoog ñoom ci yàlla loolu lim ci liggéey ci ñoo xam ne bokkuñ làkk bokkuñu ay xeet loolu moo lay xamal ne moom xol yi la ko yàlla mu mën a jeexital ci xol yi mën a wax ak xol yi ñu dégg ko radiyallahu anhu loolu nag mooy jàmm dëgg jàmm mooy xam yàlla balaa ngaa mën a am jàmm dangay xam yàlla ragal ko te yàlla mënoo ko ragal te xamuloo ko innama yaxsha allaha min ibadil ulama te bàyyi radiallahu anhu mooy ki nga xam ne mooy xamle yàlla te sëriñ dafay xamle yàlla moom ku ànd ak moom xam yàlla te dootoo ko fàtte mukk nga gis ne xamle googu muy xamle yàlla moom mooy indi dëgg-dëgg ragal yàlla te ragal yàlla nag ku ko def dootoo ragalati leneen lu du yàlla bu boobaa yow nga tàggoo li tàqalikoog tiitaange ak ragal te loolu mooy jàmm dëgg-dëgg alaa inna awliyaa allaahi laa xawfun alayhim wala am yaxzanuun bëri na nag ku lay wax ne la ku oote maqaama yooyu te fekk nekku ci de bëri na ku ne la man dama ragaluma lu may yàlla te fekk xaal boobu muy oote du dëgg ci moom ñaareel ku ko def bu fekkee ne duwoo koo xam ne li ngay oote dëgg la ci yow yàlla dana la nattu ci saasi dañoo nettali ne dafa am benn sëriñ bu toogoon ak ay taalibeem ne man ci buntab sant yàlla mu wax ne moom ragalut ku dul yàlla man yàlla rek laa ragal lu dul yàlla ragalu moo ko benn magi taalibe boo xam ne moom mag ci taalibe yi xam naa xam nga taalibe yi yu mag yi yàgg nañoo jéem a noggatu taalibe yi ne ci seen suuf wan leen ne gannaaw sëriñ bi kat man la xam leen ne sëriñ bi moo fi nekk waaye gannaaw sëriñ bi yéen man maa leen jiitu ci yàlla taalibe bu mag bi ne leen bi mu wéeteeg taalibe yi ne leen li sëñ bi wax xaal boobu man ci laa nekk man it ragaluma lu dul yàlla ah seen tuuti rek sëriñ bi génn teye ci loxoom nekkoon ko nañu ànd ca tool ya ñu génn dem ba jub tool yi rek seen gaynde taalibe bi waxoon ne moom it xaal bi sëriñ bi nekk la nekk di karkari di lox tiita tiita tiit ba bëgg a tàggoog sagoom sëriñ bi ne ko lii lan la nii mu ne ko gaynde gi moom a tiital ñu ne déet waaye mu ne sa ndeng da daanu xëm sëriñ bi tàpp tàppal ko ba mu jóg mu ne ko àndal ak sa sago daal di dem dàq gaynde gi ne ko bàyyi leen di oote daawa di oote xaal boo xam ne wérul da ngaa oote xaal bu wérul te yàlla bëgg la bëgg laa delloo siwaat moo tax yàlla indi la nattu bi loolu danay faral di dal nit yàlla yi am na koo xam ne Abdoulaye dul xaaj mi ñu xam sëriñ xariti maam alxaaji Abdoulaye Niass ak moo Mawlana Cheikh Ibrahim soppoon bàyyi lool ak maam alxaaji àndoon ak ñoom wax nañ ne moom it mus naa wax ne bu fekkee ne am na lu mu ragal lu dul yàlla yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla xiir loolu ci moom benn taalibeem génn rek moom it wax li mu wax ne man li Abdoulaye waladul xaaj wala wax laa wax dafa génn rek benn benn nag mbëkk ko mu yuuxu ba àddina bi yëpp daje yàlla weer pour maanaam wane daawa ni mu ni mu óoradee li am solo mooy ñeel yàlla jox yàlla sa bopp tamit dëgg dañuy nettali taalibe demoon ca daara ja di jàngi xam-xam xam-xam yi naxu ak fiq sharia ak yooyu biñ jàngee ba ba ñibbisi seen dëkk ñëw romb benn déeg ñu ne ñun kat dañuy dugg ci déeg bi sangu ndax yàgg nañ ca daara ja tirim nañ ñu simmee ku bàyyi seen yére yi ci tefes gi benn gaynde ñëw boof ci yére yi ñu yendu ca ndox ma a ñemewu ñoo génne ndax gaynde gi da leen yàpp buñ génnee am na benn taalibe boo xam ne moom demu toon jàngi naxu kese waaye ba mu paree ci jàngi naxu dafa dem ci ku mel ni conna amaat mu tarbiye ko tarqiye ko ba mu bam euh, bam ba mu jokkoog yàlla moom it mu ngi toppoon seen gannaaw mu ñëw rek dàq gaynde gi jëlal leen seen yére yi gars yi ne ko waaw yow foo jaar ba mën li ba mën lii te ñun mënuñ ko ñun ñu ngi bëgg a dee ci ndox mi yow nga ñëw rek rek la problème bi lan la mooy leen antum zahabtum li islaahi alsinatikum wa ana zahabtu li islaahi qalbi antum zahabtum li islaahi alsinatikum fa fa xiftumul usuuda wa ana zahabtu li islaahi qalbi fa xaafatni l usuud yen da ngeen demoon pour defar seeni làmmiñ moo tax ngeen ragal gaynde man nag sama xol bi laa defaroon moo tax gaynde ragal ma kon gis nga tarbiya dafa am solo tasawuf dafa am solo tasawuf moo mën a defar jikkoy moo mën a euh, dëgg-dëgg may nit ñi dal ak may nit ñi wóolu kóolute goo xam ne nii ak jàmm joo xam ne dafay nekk euh, day am jeexit fii ci àddina ci nit ki si dundam am jeexit ëllëg ci àllaaxira te loolu mooy li ñu amee ci ànd gi ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi yemale foofu waxtaan wi di tatagal euh, cheikh sidil arabi ibnu cheikh alhaaj mouhamad zeynab moo yegg moo dugg si nii fekk fii magam xaritam xariti ñëpp cheikh mouhamadul bachir ñu ñëw euh, taaral jotaay bi ñoom ñaar yokku ko barke ak leer xam naa dañ leen di bañ kon téye lu yàgg ci waxtaan wi dëgg-dëgg jàmm ji nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim wasaare ci nit ñi ñu koy yëg ci suñ xol yi di ko yëg ci suñ biir suñ diggante ak suñ borom di ko yëg suñ diggante ak nit ñi loolu jàmm la joo xam ne mënuñ ko woon a amee fenn lu may ci école yi Mawlana Cheikh radiallahu taala anhu kon ñu ngi laat ñëpp ci weeru rajab wi nga xam ne mooy weeri bàyyi mi nga xam ne radiallahu anhu moo ñuy takkee ak yàlla moo ñi may tey ñu mën a xam dëgg-dëgg lan mooy yàlla mën a dund yàlla bëgg yonent yàlla Muhammad xàmmee xàmmee ko dëgg-dëgg am yaqiin suñ diggante ak suñ borom génn ci ay def-defle ak sikki sàkka mucc ci mbooleem bokkaale yi ak li nga xam def ñugu-ñugu ci xoli jaam yi bëree bëree bëri yoo xam ne ñàkk ànd ak bàyyi moo leen yóbbee loolu ñu ngi ñaan yàlla ci barke borom weer wii nii yàlla saxal ñu ci euh, keppaaram moom Mawlana Cheikh Ibrahim saxal ay tëbbam ci ñun an def ñi dëgg dëgg taalibeem taalibe yoo xam ne dina gërëm bu baax a baax a baax seen ak taalibe moom Mawlana Cheikh Ibrahim te dina leen ko nangul ndax kat bëgg ko moom bàyyi rek doy na jàmm doy na kóolute xista bi may tëjee mooy dafa am ku ñuy wax alaaj Kaba jarbaat la ci alaaj Sayid sekk ca Kurdaan te ñooñu mbokk yu baax lañu waaye duñ sax taalibe moo may nettali pour wan la mu bëgg bàyyi ni mënee jural aji bëgg ji jàmm ak kóolute mooy dafa am benn sëriñ boo xam ne du taalibe fii ci Saalum dafa nekkoon ci boori Koungheul di doxal cëriñ nit ñi di ñëw ci moom di sàkku ci moom ay ñaan di ko tawat seeni soxla bés am jëmm ju ko dikkal jox ko fukki junne na ko damaa bëgg nga ñaanal ma sama soxla yi a ah, waa ji mu ne mu ne mu jël fukki junne yi ne ko dinaa la ñaanal waa ji dem ba waa ji demee rek la am jàmm di gént gént yu raglu di tiit di gis ay rabak yu ma xamut nelawatut amatut jàmm lu ne mu dugg ci pour mucc ba yàlla dimbale ko mucc mu toog ab diir dajeewaat ak jëmm jooju jëmm ji ne ko waaw yow maa fa ñëwoon jox la sama fukki junne yi di la ñaanloo soxla bi fajuwut te loo ma sama fukki junne mu ne ko yow lay wax nii mu fàttalikoo ba mu fàttaliku li muy wax mu ne ko wax nga dëgg joxoon nga ma fukki junne mu ne ko moom laa bëgg nga delloo ma ko ndax soxla bi fajuwut mu ne ko yow xam nga ne fukki junne yi jaay naa ko bu yàgg borom kër mënta denc xaalis xam naa ci man dara te yaakaar naa ne yi tamit ñëpp xam ñi fi nekk te amee kër xam yépp xam nañ ci dara mu ne ko xaalis ba jeex na man fi ne nii aw ma fukki junne yu ma la delloo mu ne ko yow xaw ma loo àndak waaye man képp ku ma mës a jox weexal man du ma nit rab laa ku ma mës a jox weexal rek yàq naa ko yàq njabootam yow rek yaa ma të bi ma la joxee sama fukki junne yooyu ba léegi maa ngi yebal samay ndaw ci yow pour ñu yàqal la waaye buñ jógee rek wala man ma jóg topp seen gannaaw rek gis boroom kaala gi ak faas yi muy dox sama diggante ak yow mu ne borom kaala yi ak faas yéen moom waa ji xelam dellusiwaat ndekete bi ko waa ji joxee fukki junne yi dafa ñëw fii kawlax jëmoon ndakaar jaar kawlax ci Mawlana Cheikh Ibrahim yëkkati ca ñetti téeméer jox ko ko àddiya xelam dem ci loolu ndeke àddiya jooju mu jox Mawlana Cheikh moo ko sauvé. loolu dañ koy wax taalibe yi ñi ma ko nettali duñ taalibe te ñu may dégg góor gi caama ngi nii xam na alaaji kabaar dañuy ànd këram mu ngi dund fii nekk ku bari Koungheul fii moo mu ko nettali ak waa kër alaaji Sayid xam nañ góor ga ci boppam moo leen moo leen nettali xissa bi kon ki ñu ànd ak bëgg ko rek kooku du taalibe jox baay ñetti téeméer kon taalibe yi nga xam ne dañoo dëkk ci liggéeyal baay ak ànd ak baay bëgg baay ñoom lu ñuy ragal nañ xam ne incha allah ku ànd moom danga am kóolute fii am kóolute ëllëg yàlla nañu yàlla saxalal ànd gi àndak moom te wéral ko in uridu illa lislaaha mastataatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh